jokkoo ci maanaam euh, euh, euh, société bi jox moom jokkoo téléphone baax na lool ci jokkale aw askan. Mhm. ñu ngi ci am na ñu ciy xamante ñoo xam ne di dund seen mbokk ñoo xam ne téléphone tax. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi jàng seen diine ci téléphone téléphone tax. Mhm. mu réseaux yi ñuy wax. am na ay groupe yoo xam ne dañ koy ubbi mbooloo di ci nekk deux cent cinquante personnes ci nekk yëpp. jàng dong moo leen ciy teel duñ ko def af benn photo du fa am vidéo du fa am ak lu mu am am importance mhm. duñ ko ci dugal la concerné njàng ma ñuy jàng rek moo moom la ñuy def mhm. kon loolu am na solo ci lu temps am na ci solo mhm. ni nga waroon a jógee Dakar dem Touba def deux heures de temps ci yoon wi téléphone permettre la nga nga jël deux minutes régler ci sa soxla. ci nga waroon def deux heures temps nga jël nga def ci deux minutes. kon dana am am na solo lool ci distance bi ni mu ko ni mu ko coupé. bu dee ci wàllu économique noonu li nga waroon a paas Dakar ak euh, sa dix mille francs sa euh, mille francs yi nga waroon nga jëfandikoo benn cent franc wala deux cent franc mu ja mu jariñ la. kon am na ay njariñ yu dul jeex yoo xam ne xam nañ ko ci wàllu économique mais noonu la amee ay lor nag ci wet yi ci des bu ñëwee ci misaal ci société bi dem na ba. dafa nekk ak ngëmu ak ngëmu damay xam ci eh, docteur Massamba Gueye juróom-ñeent fukki jikko ak juróom-ñeent yu baax maanaam dama koo xam dund ko ak moom téléphone wax ma ci moom dara loo xam ne dañ koo dégg ma bàyyi la ma jàppoon lépp ci moom bëgg jël benn bii ma dégg la wax de bëgg jël bii ma dégg dérive yi téléphone mooy def loolu mhm. nga xam ne danaan la kon ah ah professeur Massamba ni ma yaakaaroon ni la baaxee ndekete mhm. ndekete lan mooy am na loo dégg mhm. li nga dégg moom Sëriñ Fallu daan wax ne li nga dégg ci nit boo ko gënee gëm ci li nga xam ci moom la nga dégg dalaa gënal. dëgg la li nga dégg ci nit boo ko gënee gëm ci li nga xam ci moom. la nga dégg dalaa gënal ñun lool lool ci loolu la ñuy dund. bu dee ci wàllu économique li mu yàq bari na. da nga dégg dalaa gënal. poussé nañu ñun poussé nañu ñun. Ah. ñun waajur yi ak seeguma ci xale yi waajur yi. Mm-hmm. maanaam lu ñu waroon dundee ay dépense ñu dajale ko jënd ko benn téléphone. benn téléphone di ko ŋàbb bu ñuy fotowu di ñuy sanab di wane ne téléphone tel la ñor. dëgg la dama euh, dem Amérique euh, benn waay ni ma yow nar ngaa dugg Amérique ba génn ci doo yóbbu ci iPhone yi ma ko lu may yóbbu lu may doyee iPhone lu ma ko yóbbu pourquoi iPhone pourquoi lu tax ma ne faaw mu am iPhone dajale loo xam ne dépense ay fan la. def ko def ko téléphone. ngir bëgg a def lu yëpp rek waaw airport yi. bi muy doog en 2017 bi muy doog a génn. benn waaye dana moon euh, yi seen airport yi lu am solo la day filtré wax ji. wax a wax bu tàggale ma ko bàyyi ma ne ko ñaata la jar mu ne ma 250 dollars euh, mën naa la ko jëndal. ma ne ko ab sëriñ daara nan lay jëlee nangami saako saako ceeb lonk ko ci am noppam. dëgg la <laughs> nangami saako ceeb. yu xale yi war a dund ngeen lonk ko sa benn nopp. c'est vrai en dañuy dagale li ñu war a dundee da ngay gis kër goo xam ne téléphone yu cher moo fay nekk. seen dund ñu souffrir ci dund gu métti. te kër goo xam ne saa bu ñu xëyee ku nekk dana dugg dana dugg ligne dana dana dugg paas internet ca seen dépense doyul ñu am lu ñu lekk loolu day am. dangay gis ñu sàkku ndimbal ñoo xam ne jamono ju nekk li ñuy dépensé wu ñoom juróom benn nit nekk ci kër ku nekk def 1000 francs paas ba noppi amuñu 2000 francs ñu yu ñu dépensé téléphone buy jar ñaan fukki junni mooy ah, waaw ñaan fukki junni waaye ñaan crédit ngay ñaan ñaan ñaan ñaan ñaar fukki junni mais ñaan crédit boo boo fonctionné bu téléphone bi fonctionné da nga ko am <laughs> waaw am ma paas téléphone am naa téléphone bi li muy cher cher am internet bu ko bu ko fonctionné yooyu nag dafa dafa doy waar ci suñu société bi yoo xam ne jéggi na doy beneen bi mooy réflexion quand li mu dem ba àgg ci ñun mu nekk drogue ci ñun dem ba nekk drogue ci ñun nga xam ne da ngay dem ba jàpp nga ne yow sa téléphone waxuma la téléphone bu réer de mais benn temps rek boo xam ne jàpp nga ne war ngaa mën a jël sa jukki alxuraan jàng ko teg sa téléphone ne damay wax ne dangay ngay da ngay silencier téléphone bi teg sa téléphone këpp ko di jàng sa alxuraan wala ngay jàng sa jaamu yàlla looy def maanaam mënoo muñ téléphone bi yaay toog ba ci yàgg nga wëlbatil ko sa bopp ba xam woo nañ la dëgg la ceew yaa yaa ne yaa bañ ku la woo moo tax nga financé ko képp ko teg ci mais mënoo muñ loolu ci sa deret lay nekk loolu nag bu demee ba àgg foofu ci ab société bu doy waar la li ci des moom mooy société bu jegee ba noppi soree dañu nekk ñun ñëpp ci saal bi saal mu nekk mooy garabu garabu euh, kër boo demee ci dëkk kaw yi garab gi ci pénc mi fa la waa dëkk bi di garab gi ci ëttub kër gi ci la waa kër gi ci la ñuy waxtaanee fi la ñuy añee fi lañuy ñuy reere di sottante xalaat lu xew ci kër gi ñëpp xam ko ñu nag saal yi léegi moo moo remplacé loolu malheureusement suñ saal yi dañuy toog bàyyi toog yaay toog soxna toog doom toog bàjjan toog ñoom ñëpp ñu nekk fii ñi ngi waxtaan waaye nekk waxtaan ñu ku nekk ci kër gi kenn ku ne yaa ngi waxtaan ak ku nekkul ci biir kër gi loolu doy waar loo xam ne ci ci wàllu société bi baaxul bu ñëwee ci xale nag xale yi euh, téléphone dafa am âge boo xam ne sëñ Massamba li nga wax dama ci d'accord sën nga bu ñu jàpp ne lu munta nekk lu mun munta nekk amul téléphone kañ la fi kañ la fi yàggul lu tax ñu jàpp ne xale yi mënuñ koo ñàkk sën nga nan ngay jëlee xale boo xam ne yow sëñ euh, professeur wax na ko léegi sëñ ji bi maanaam téléphone bi yow da nga am sa xale noo bëgg mu mel nii âge bi mu doon muy muy fukki at fukki at ak nangam ñoragul ak nuddul aqli amu maanaam xel mi ñoragul psychologiquement nekkagul ku nekk koo xam ne maanaam soppiku wees na ci moom waaye léegi nag nga jël adduna bi jal ko ci kanamam parce que téléphone ci sa kanam moom mooy adduna baa ngi sa kanam fu la neex dugg fu la neex dem mm-hmm. kooku nag saa jamono ju nekk day copier lu mu gis copier lu mu gis copier du nekk mukk type bi nga bëgg nit ki nga sénégalais bi nga bëgg mu doon ko mhm. du ko doon jullit bi nga bëgg mu doon ko du ko doon mhm. Mhm. ndax yow yaa jël lu jaxasoo jël ko teg ko ci kanam yaa ko jox ouverture yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne kullu mawludun yuladu aw aw aw nasraani sa doom dafa judd set wecc nu mel ci jikko ju baaxul yow yaa koy def yow yaay responsabilité parentale bi waajur yi yëg gi war a yëg ne seen doom yi dëgg la xéewal la maanaam ziinatun la maanaam yàlla nee na doom yi taaru àdduna la waaye nag fit na la it nag ndax yaay yow yaay responsable bi diggante bu doom ji juddoo ba ba majeur yow yaay responsable bi kon nag war ngaa fexe ba ki nga bëgg sa doom doon ko ngay nga koy observer seen nga boo demee ba mënoo ñàkk jël sa téléphone téléphone sa doom am na ay ay ay application yoo xam ne dañ koy jënd mën nga ko installé sa téléphone doom xamal ko man man sama daara jamono yi nga xamee ne introduire gu ma fa téléphone man xale yi xam ne mu benn bi nekk ci école franco arabe bi dama ne leen woon nañ yor téléphone mais benn condition moo am mooy ku nekk sa téléphone dama ci installé benn application boo xam ne amul luy jàll sa téléphone ca doo doo xam dama lay xamal ne maa ngi lay suivre ah, du du dara fenn fooy dugg dama ko xam léegi waajur yi day jar nag bu dee mënoo ñàkk jënd téléphone bu cher mhm. application bi en même temps nga jënd ko installé ko sa téléphone fu fu mu nar a déraper nga tegaat ko ci aw yoon. Mm-hmm. waaye nag boo jëlee sa doom bàyyi ko ak ak ak adduna bi ak adduna bi li mu lëjee mm-hmm. nga yaakaar ne yaa ngi noppalu. Mm-hmm. da nga dem ba mu gis gis gis sa musiba kon nañu bàyyi xel ne xale bu toll ci jàng ci jàng la toll. xale bu toll ci jàng ci jàng njàng moomu nag lépp lu koy gàllankoor njàng mi du caa gi li muy jàng ci leçon yi kese loolu ci gën a tey tuuti. nit ay ay ay ay jikko yi war a nekk ci moom da ko war a jàng melokaan a nekk ci a la war a daf ko war a jàng seen la ko jànge war a jàngee ci yaay ci baayam ci ci ñoo ko war a jàngal mais bu dee ñooñu tëluñ ko libéré ko ak lee boobaa musiba lay jural lay jural xale boobu. kon li ma gis jamono gi nekk ci di ko ñu jéem a protéger xale bi. ni ngay xale bi ba oto du ko du ko fël ba du lakk. du gaañu mais mais loolu yaram bi la. nit ñaar composé yaram ak ruux. ni nga xayma ni ngay protéger yaram yi ba du ba du loru. noonu nga war a protéger ruux gi ba du loru. ba du yàqu. mais boo bàyyee yaram bi kese. muy dund da ngay dégg lu ñu bari dama koy faral di wax da ngay dégg ku naan sama doom euh, xiiful marul raflewul. sama doom du xiif du mar du rafle fekk sa doom. maanaam xiiful yaram bi moo xiiful moo marul moo raflewul waaye roox gi lekkul soluwul naanul. amul benn yëg-yëgu diine amul benn yëg-yëgu pas-pas amul benn yëg-yëgu ci ay valeur yu mu a am. boobaa nag waajur wi responsable la ci kanam borom bi subhaanahu wa